ndewoy ndewoy ndewoy sey maane ndewoy alaykati kam mangalaya Sène mu ngi si ginnaawam Malaw Seras mu ngi si ginnaawam Pokola mu ngi si ginnaawam. Jacob ñëpp a ngi si ginnaawam. yaa ngi may def mais ñun ñoo ñëpp ci ginnaaw la ñuy des Ama Baldé la ak Gris Bordeaux la. wuree ba ca pundub mooy xale. ma ne wuree ba <laughs> amul baag la wala. non duñ ci egg wala ma ne la Ama moo gën a nekk xale Ama moo mën Ama dàq xeex Ama ko ëpp doole moo ko gën a nekk xale te dañ ko yónni yàkkamti ko. jàpp daan la. kon combat amul calcul. du ma du si calcul da koy jàpp daan ko. billaay wallaay tala li mu mer yëpp ci ñeenti at ci Gris Bordeaux bi la koy sëb. premier premier kii bi premier euh, bu maa naa ni ndox du am comme la fois passée diggante si tafa passé. non du am non non loolu du am. duñ naa ni ndox non loolu duñu am xamee wuñ ko loolu depuis mbapat nag ba arène xamee wuñu Ama Baldé naa ni ndox xanaa nga téye sa bopp ne dooma laal. ñu téye suñu bopp rek xaar ko. xanaa waxoo Ama mooy xale. non dama la ñu téye bopp xaar ko déglu ko parce que ku ñu ku mu nax lay wër te du nax booy bi booy bi doful sax xa gisoo lii gisoo tout tànk yi. buñ bëree. ah bëree. bu ñu bëree Ama daan ko bu ñu xeexee Ama daan ko dégg nga si côté bu lépp. rang bu desee jurat. amul bi amul dara. billahi wallahi lu mu am dem signature. dem neexal ko animé. ama ah, indil ñu ndam bi fii loolu lañ koo sant. kon léegi Baye Demba day changé na ko changé tous wala Gana wala. ah ah. Baye Demba na ko changé tous wala. non Baye Demba suma xarit la mu koy nuyu. mu changé ko tous wala mu bàyyi tous. ah non ñun suñu tous la ñu génnee bii mooy sa dernière chance tous boobu daal la ñu génnee caw sa xiir bi dañ koy teg ah, waaye cappal caaw bii mooy sa dernière chance moom la ñu génnee cappal caaw. cappal caaw. kon maanaam yéen a bëgg a génnee giri ci kii. mën na la cappal caaw. yéen ci làmb. retraite la jëm. yéen a ko yóbbu retraite. retraite la jëm. leer laa lay wax. kon giri am na problème. fi mu dal moo baaxul. kon bu baax a baax pël. pël tey damay wax de. kon daa juum pël bi moo xew daa juum voilà di nga Pape bi di nga nii laa doon waxee si Boy Niang de nii laa doon waxee ci Eumeu Sène te lu ko raw laay wax tey ci am moo lay won ni man mi man maay Pikine Pikine ma ñor. maay monument bi. may monument bi. kon Gris Bordeaux dafa juum. non dama ne la na ñëw na ñëw woon ni ki rakam la bay ko mu dem. monument eh, monument waxal xale yi baax na. mooy borom dëkk bi té li ma ci gëna a neex toolu maamam lañ koy eh ci tay borom dëkk bi de. waaw Siteu moom moom mooy borom dëkk bi. Kan? Ah? ama mooy kan. ama moy kan. ama waay mais toolu maamam xam nga tolu bi tolu pa fo de bé ku ba ku bay ji nana da ngay jënd nga ñëw di bëreeg moom foofu toolu maamam sa waay tamit yow it dama la amateur yi laa la wax ma ngi koy wax goro ndoy amateur yi waxuma supporter yi amateur yi buñu ñu la dugg ci stade bi midi ma tëj stade bi. kon supporters a supporters yi laa la wax. amateurs yi nga xamante ne ñooy toog loos waa Pikine feesal stade bi ma ne la combat bi ngay xam kuy Ama Baldé. kon huit heures huit heures bi huit heures stade bi day fees. billaahi wallaahi. yéen non ñun mi waay dem lan ñun ñu dëkk foofu ñun fii lañ dëkk ni fay ñu kaar dawaluñu scooter dox dugg nga naan ma kañ ngay dem. pël ndax kii xam naa ma topp pël pël ba damay maa ngi fi ça pël yaa ngi yaa ngi cool ñaari baat rek la amoon ci li may wax. bu la neexee ñett. waaw la demee nag ñun ay doom Pikine lañ Pikine rek a ñu ñor comme ni ko grand bi waxee yaa ngi dégg sa ñun ku ku aayee dañ lay teewal comme ni ko grand bi ñun Pikine ñu ne ñu ñor yaa ngi dégg mbootaay bu doon génn Pikine dañuy ànd ak moom ñun Pikine lañ dëkk ñun yaa ngi dégg sa di ñaanal nag mbëru Pikine yi am combat yëpp yàlla may leen dam ba ci Pokola mi bëre dimanche xam nga Ama Baldé waaw ñoom ñëpp booy ñaa ama ñëpp waaw billaay ñu feete ko giri giri <laughs> na ñëw yaru rek bu yaroo ma jàpp ko daan ko bu jéemee indi bagaar dama koy duma daaneel ko du xeex du xeex du bëre lépp maa koy ngay dégg mu naan da ngay xeex dinañ xeex. barke Pël Gris bu xeex am lu ko ci àddunaam. billaay wallaay. léegi si kenn du xeex ak moom pii ko mbër bi borom dëkk bi Pël bi. Ah, capal caalaa indi. ñoo gën a fuuf ñoo gën a wóob. capal lu ma gën ne mu siiw. cëppal caaw cëppal caaw da koy cëppal caaw billaay ñu ngi jox rendez-vous ñëpp 2 bi ñu ànd ak dal supporters yi ànd ak dal yaru ñu ànd ak dal ñu xam ne tey suñu grand la ñuy fekki magam lay fekki yaa ngi may dégg sa wax ji tegu ci yoon xam nga mooy nuyu ñëpp nag di baalu ak ñëpp merci waaw di féliciter tamit maa ngi féliciter Papa Sow di ko wan lii mooy làmb vraiment waaw li mooy làmb maa ngi koy félicité ndewoy ndewoy ndewoy sey maane ndewoy alaykati kam mangala yaara